ànd ak euh, Chérif euh, Dia Chérif ñu ngi lay euh, bàyyi ak téléspectateurs yi nga faram fàcce leen li gën a fës ci bopp xibaar yi faram fàcce est-ce que sax du gudd mën nañu mu jàngatal ñu ko. waaw jàngatal ko waaw. parce que boo nee faram fàcce moom Chérif day jël taawam te mu indi ay ñoom ventre ak oreille bi <laughs> ni ko Mortala di waxee ci quotidien bi Chérif ñu bàyyi la ak téléspectateurs yi ci li ci yéen kaay. jërëjëf Fatou li ci yéen kaay ñu tàmbalee ko ak l'observateur dellusiwaat ci tiis wi daal ci askanu jullit yi fii ci Sénégal ca kaw Kaolack xalifa général bu Medina Baye Cheikh Ahmed Tidiane Niass wàcc na liggéey ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti at beneen tiisit dal ci Sénégal démb Mansour Kama mi nga xamante ni moo jiite CNES moom it dal di wàccu liggéey yéen kaay bi ñëwaat kon ci ñaari tiis yi ci xëtam mu njëkk ñëw na également ci li nga xamante ni moom mooy coowal stade Assane Diouf ca Rebeuss fukki at ak juróom-benn ginnaaw kon jafe-jafe yi dafa mel ni déggoo am na ca diggante collectif ba nga xamante ni kon ñoom ñooy waa Rebeuss waa mosquée omarienne ak chinois yi ñi nga xamante ñoom ñoo yoroon kon projet Kawsara bi yéen kaay bi ñëwaat na jox kàddu kii di Pape Ndiaye moom ak Alex ak Uno ñu tëjandoo woon leen lu toll ci ñaar fukk ak ñeent président Macky Sall di koy jégal ba tax na kon moom Papa Ndiaye am na waxtaan wu am solo woo xamante séq na ko ak yéen kaay bi di l'observateur dellusiwaat ca Sandaga daal di koy daaneel muy loo xamante ni kon histoire la boo xamante ni kon bu Sénégal duñ ko mës a fàtte tabaski gi xar yi nga xamante ni également jarun kaay bi di l'observateur daal dina ciy dellusiwaat beneen yéenekaay di laas ñëw ci tiis wi nga xamante ni kon Sénégal mi ngi ci naqar nee na daal boo xoolee lu toll ci juróom-benn kilifa ñoom ñoo dëddu ci ayubis bi ñu génn ci ñoom bokk na ci xalif général Medina Baye Mansour Kama leen Marie Faye ak ñeneen ba tax na kon mu ne VSD sam vendredi samedi dimanche boo xamante daal bu tiis la ci tabaski gi yéen kaay bi daal ci ñëwaat ak tamit fi nga xamante ni mbas falan toll Sénégal lu toll ci fukki junni doomu aadama yoo xamante ni kon mbas mi daal dina leen di laal faucheuse des bajo bi kon dafa mel ni ñëwaat na yéen kaay bi daal ci waxaat muy enquête Mansour Kama ak xalif général bu Medina Baye ñoom it mu mel ni kon mbir yaa ngi gën a tàkkat si fii ci Sénégal Serigne Pape Malick Sy après moom euh, kii di euh, Babacar euh, Kam Babacar Touré moom moo moom moo génn démb tamit ki nga xamante ni moom moo génn àdduna di Mansour Kama Cheikh Ahmed Tidiane Niass ak yeneen kilifa yoo xamante ni kon wàcc nañ liggéey ci fan yi yéen kaay bi daal di ci ñëwaat Vox Populi moom it ci loolu la daal di waxaat rappel à Dieu quatrième xalifa bu Cheikh al Islam Medina Baye kon daal di ñàkk rek Pape Cheikh. moom lañ ko doon woowee muy kilifa gu mag goo xamante ne démb la génn àdduna ci hôpital général bu Grand Yoff ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti at yoo xamante ne yenn kaay bi dañ ñëwaat na ci beneen kilifa di Mansour Kama moom it mu ne secteur privé bi moom moo ñàkk capitaine ak ko xamante ni yàgg na di wéy rek di aar lii di secteur privé bu Sénégal am na beneen it gis nga ko noonu muy ca mbalaxe Serigne Moussa Dia moom it xalifa bu mbalaxe moom it daal di wàcc liggéey ci tabaski gi muy tiis woo xamante ni laal na Sénégal woowee tiisit la libération daal di waxaat muy ki nga xamante ni mooy xalif bu Medina Baye moom it daal di euh, noppalu yéen kaay bi daal di ñëwaat ak mbas mi fii ñu toll bilan bi du toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñeenti doomu aadama ñoom ñoo ñàkk seen bakkan chiffre yaa ngi ni libération daal di a communauté musulman di jullit yi ñu ngi ci tiis ak génn àdduna xalif bu Medina Baye moom it daal di rek noppalu bun sukkandikoo ci yéenekaay bii di Sud Quotidien moom it ak patronat bi nga xamante ni ñàkk na kenn ki nga xamante ni jëmmam la woon di Mansour Kama buñ sukkandikoo ci Sud Quotidien ñu ñëw également ci Le Quotidien daal di ñëwaat ci Mansour Kama mi nga xamante ni dëdd na muy koo xamante ni patriote bu mag la ci wàllu koom-koom ñëw na également ci Medina Baye bi nga xamante ni ñàkk nañ kilifa Cheikh Ahmed Tidiane Niass moom it daal di wàccab liggéey yéen kaay bi ñëwaat na ci histoire bi nga xamante ni mooy bu Sandaga démb nag lan daaneel cantine yi ko waroon bëgg koo defaraat muy loo xamante ni bëgg nañ koo tabaxaat mi ngi coûté soixante-dix milliards de francs fa ci ñaari at la liggéey boobu di daal di wéyaat beneen yéenekaay di les échos daal di ñëw ci tiis wi daal fii ci Sénégal démb ak ñaari kilifa yi nga xamante ni dëddu nan muy euh, koo xamante ni rek ci wàllu koom-koom la ak wàllu diine xalif général bu Medina Baye bu ñu sukkandikoo ci les échos daal di rek génn àdduna ak xalif bu mbëla xëyit naka noonu Mansour Kama Gora ngoom bu xel Xelkom baas moom it ñu secteur privé bi dafa mel ni nekk nañ ay bàyyi ndax ñaar ñoo ñuy wax tamit ñu mag lan woon ci wàllu secteur privé ñu jeexale ko ak quotidien yi nga xamante ne ci wàllu tàggat yaram lan ak Idrissa Gana Gueye mi nga xamante ni jël na coupe de la ligue ca Tugal muy koo xamante ni daal moom it mu ngay jël ay ndam rek yenn kaay bi daal ñëwaat ak triple bi nga xamante ni wante nag am na ëllëgam yéenekaay bi samp na ci ab laaj yéenekaay bi di stade la même chose ñëwaat na ci nga xamante ni kon mooy Paris Saint-Germain confiance ak tamit loo xamante wàllu incertitude du jëm rek ci kii di Idrissa Gana Gueye Didier Drogba moom it ak Pierre-Emerick Aubameyang yéenekaay bi wax na seeni i mbir ñu jeexale ko ak la sunu làmb ñëw ci jafe-jafe yi nga xamante ni nemeeku nañ ko ci wàllu làmb ji juróomi juróomi weer yoo xamante ni kon ci lañ jot a bëree 37 journée 24 promoteurs grève des arbitres muy saison boo xamante ni taro saison corona la ko yéenekaay bi tuddee ak rek ñi nga xamante ni moom it muy dut yaaykat yi Pape Diam yi génn àdduna ak moor Ngeer ak Jules Balde muy tiis woo xamante ne laal na làmb ji ak jafe yi nga xamante ni gis nañ ko rek muy ñoo xamante ni bëgg nañoo bëree ba léegi mu ñoo bëree ndax coronavirus beeg jafe-jafe yi nemmeeku ci làmb ji. Chérif Dia ci tënkub euh, yéenekaay yi léegi léegi dañuy dalal professeur Lamane Mbaye ci chronique bi muy amal altine bu jot.